asalaamaaleykum mbokk internet yi rawatina yéen mi taamu Yegle TV dalee nag jàmm ci sen biir émission ndugg tay nak nag mbokk yi ñu ngi fi ci marché Liberté 6 extension fas yéene dugg ci biir marché bi waxtaan ak ki nga xam mo moo nekk jaaykat bi waaye itam dinañ waxantaan ak ki nga xam moy mooy jëndkat bi mo xam muy goor la wala jigéen la ndax léeg di nga gis ay goor yo xam ñoy ñew di ndugg ci pour sen jabar waye tam jigéen yi nga xam ñoy ñoo nekk ménagères yi dinañ waxtaan ak ñom fas yéene waxtaan tamit ci li nga xam mo moo nekk tarif prix yi ndax léeg tamit mbokk yi di ngeen gis prix day yok léeg tamit prix yi day wacc bu baaxa a baax dinañ dugg rek ci biir marché marché bi bi xool ki nga xam ne moo nekk jëndkat bi waaye ak ki nga xamante ni moo nekk euh, jaaykat bi tamit bàyyi ñu kenn dinañ dem si jaaykatu euh, yàpp bi jaaykatu légume bi jaaykatu euh, xorom si du ñu bàyyi kenn képp kuy jaaykat rek dinañ dugg waxtaan ak moom ndax léeg-léeg di ngeen gis marché bi des fois mu métti lool ba koo xamante ni ménagère dem di naan marché bi tey dafa métti dinañ fas yéene waxtaan ak loolu yëpp kon nag mbokk yi ayca ñu dem ñu duggal doxantu ak yéen ànd ak yéen dem ci biir marché bi rubrique euh, ndugg li suñu biir émission ndugg ñu fas rek euh, waxtaan yow ci li nga xam ne euh, ak jaay bi ñu ngi da nga wax ñu tey lu indi ci biir marché liberté 6 bi dama ñoon fii pour jënd ay dama ñoo pour ndugg ndugg ji waaw mën nga ñu wax rek li nga xam ne moo prix yàpp bi ndax dafa nekk en hausse wala dafa wàcc dafa wàcc dafa wàcc fu mu toll ni waaw waaw ndax mën nga ñu wax rek prix bi ñaata la prix bi kilo def naa 2800 demi kilo 1400 waaw. waaw bu ñu jógee ci loolu comme gis nañu il y a un jour de cela ñu génn si li nga xam ne moo nekk Magal Kazu Rajab bi te bu njëkkan ba boo ñëw dañ la naan prix euh, légumes yeeg lépp dañ ko aj ndax léegi wàccaat na ou bien. na bu baax a baax léegi ñun ñoom ay légumes yu bëri waaw ci marché bi dafa am légumes yu bëri wàcc na prix yi wàcc nañu waaw. ndax euh, yaa ngi ciy kontaan bu baax a baax. bu baax a baax dama sant suñu borom ndax mm, léegi dañu am une dugg yu am solo dal voilà qui prie ndax mën nga ñëw fàttali rek li nga xam ne moo nekk sa tur ak ban nationalité ndax apparemment gis nañ ne ngay wax mais xam nañ ni doo sénégalaise mais macha allah yaa ngi ciy génn euh, ci olof bi bu baax a baax ndax mën nga ñu wax rek sa tour bi ak dëkk bi nga bàyyee ko. man madame Séri Séri comme waa Côte d'Ivoire la. waaw waaw. d'accord waa euh, légumes yi nekk fii Sénégal ak yu Côte d'Ivoire ndax mën nga ñu wax rek la ban différence la ci am ak prix yi aussi. différence mooy ci Côte d'Ivoire dañoo def ay sàmm fi mën nga am benn légume fukki dërëm ñaar fukk dem ki kaw waaw. waa léegi ndugg Sénégal ak bu Côte d'Ivoire ban mo gën a yomb ci yow. ana Côte d'Ivoire rek. <laughs> mais ne ko di sa waa dëkk nga yaakaar fii légume dafay dafay cher fi dara de soxna si. waa cher wa foofu moom ay sàmm sàmm fukki dërëm mën nga am benn sàmm légume fukki dërëm am ay légumes yu bari ci biir. Wow, nga waaw loolu mooy différence ok ok madame kon vous euh, lay ok merci. merci. alaykoum euh, sëñ bi waa Yëgle TV ñoo leen seet si woon euh, ci biir marché Liberté 6 extension ñu ñëw fekk le fi ci sa place nga nek euh, commerçant di jaay ndawal mën nga ñu baaxee rek tour bi ak sante bi. man maa ngi tudd Cheikh sante bi Diouf quoi Cheikh Diouf. waaw xam nga léeg-léeg ndugg li day yomb léeg-léeg ngeen jàpp prix itam aj ko ba mu kawe. yi nga dégg ñenn ñi di lamenté wu ñu naan marché bi yombul am marché bi neex na mën nga ñu wax rek lu waral loolu yow sëñ Cheikh. mais lu waral loolu mais ñun du si ñun quoi. si jaaykatu nag yi la xam nga nag dafa seet dañ koy jëndee Bambey ñëw indi ko fay transport ba kaa ñëw fii jaay clients yi mooy loolu waaw am na client yoo xam ne ay 2600 la ñuy fay prix normal 2800 waaw loolu mooy prix normal ye saa yi nag yi gis client yi di la fay ay 2300 lu kenn xamul quoi loolu nag du dara mais mais njaay bi kenn yokk ko de kenn yokk ko nag bu yokkoo rek njaay bu yokku bu wàññee rek ñu wàññi mais mën nga ñu wax exactement actuellement prix bi euh, kilo li euh, yàpp bi kilo bu ñaata la actuellement ak bu njëkkoon ba daal da dangeen kaa yokk am da ngeen kaa wàññi cher. non yokk ñoo ko sax kilo bi kilo bi instant mi ngi jër 2800 libar mi ngi jër 1400 gën maa libar mi ngi jër 700 waaye yokku ñu ko ba léegi. mais am na quartier yoo xamante ni comme par exemple ay HM Grand Yoff boo fa demee léeg-léeg ñu ne la peu euh, bi kilo bi 2600 euh, la nga dem ci euh, Liberté 6 fii nga ñëw fii ñu ne la 2800 la lu waral loolu. mais nag ñoo bokkul ma sama nag dafa am qualité quoi sama nag si dëkk yi laa koy jëlee mais nag ñoo bokkul mais boo demee tamit marché Castor am na ñu fay jaay ay kilo ay kilo 2800 2600 2700 ba léegi man ak moom ñu ngi jaay bokkul loolu la. Cheikh nga yaakaar jaaykat aussi duñu ciblé quartier yi comme ñu xamné fi quartier résidentiel la macha allah ñu jël prix rek aj ba mu kawé bu comme par exemple ay Grand Yoff la ñu waccé prix yi ngeen yaakaar aussi du lolu non dédé du loolu du loolu <laughs> déedéet waa Grand Yoff moom xam nga fo moom marché la xam fo dafa bëri jaaykatu yàpp lolu nak mo moo tax di waccé prix bi mais pour pour fini nekul lu mu nekk fi rek mo tax ñu ñu kii prix bi rek mais prix bu wañé ko rek dañ koy wañé Eh, seetlu nañ tamit euh, beneen fee bi nga xamante ni euh, événement buy waaju jub si prix lépp ay yokk lu waral loolu tamit seen seex lépp si pël yi rek pël yi ñoo yokk lépp ok te avant tamit mooy loolu xam nga njaay bi day dox te njaay bi bu tamit waa ngay yokk prix noonu la ah gisoo jaaykatu soble yi du yokk prix waaw comme nii la rek jaaykatu yàpp il faut ñuy yokk prix voilà ndax ñu mën see am dara ñu yokk duñu am dara yenn saa dañuy jaay nag jékki-jékki daanu duñu gis dara mooy loolu moo tax waaw Yëgle TV ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax sëñ Cheikh. maa lañu sant maa di leen gërëm li ngeen def ni kontaan naa si trop trop TV yéen nekk si jaamu yoon point com ah yeah. Assalamualaikum, euh, soxna si way yegli TV ñoo la setti won tay ñu ñoo fekk la fi euh, ci biir marché Liberté 6 extension ñu fekk la nga yox sa ndugg gu baax machallah ñu bëggoon rek nga baaxee ñu euh, sa tour ak sa sant. asalaamaaleykum ma ngi leen di gërëm di leen sante man ko li la tuddu wa waaw ko li tey ñoo nañ fi Liberté extension fekk la ngay dugg machallah ndax mën nga ñu wax rek ci li nga mo nek prix légumes ndax gis nañ lélé prix day yokku lélé mu wañéku ndax mën nga ñu wax rek tay ji prix noko dundé tay ji ah prix yi kay tey yokku na bu baax ndugg bi kay yokku na ndugg bi léegi dafa cher trop waa ndugg bi kay yokku na bu baax. waaw mais des fois comme gis nañu instant yi amul benn événement bu nekk yoon ndax Sénégal tàmm nañu bu ñu jubsee ci événement rek dañuy jël prix yëpp aj ko ba mu ci kaw a kaw comme amatul benn événement ndax yaakaaroon ni rek il est temps ñu wàcceewaat prix yi bu baax a baax. ah prix yi moom kay <laughs> ñoom kay dañuy xool lu leen arrangé rek ñu def ko.

new fi man dam fi jaaroon di ko ko seetal quoi en fait waaw. mais gis nañ nga del sa benn euh, plaque def ko nii mais est-ce que am nga visibilité aussi. non amaguñu visibilité moom amagu ko ko en fait parce que nit ñi ni ñu war a ñëwee ñëwewuñu ko waaw moom man jaayoo ma fi en fait damay wër di jaay mais moom moo fi moom quoi new fi waaw. mën nga ñu baaxee rek euh, prix yi nan la fay demee ak yan catégorie jën ngay jaay. waaw effectivement am na sompaat moom day jaay sompaat day jaay doxaat day jaay coof day jaay yaax day jaay kasaw. waaw day jaay crevette aussi ak fruits de mer yëpp da koy jaay moom. mën nga ñu wax rek euh, prix yi ci lan lay varier daal mën nañu xam prix yi. ça dépend de au delà de 1500 ba 6000 waaye.

mais est ce que dina leen arrivé léeg-léeg yenn say tabit ngeen jël prix rat acc ko comme gaay yi ni jaaykati légumes ni ñi def jaaykati jën ndax duñ def lool ndax lélé nga ne leen dafa manqué ngeen japp prix que acc ko ba mu kawee effectivement jën dafa manqué on peut le woo ko bu da ngay dem marché xam ne dafa manqué parce que jën yi ñun suñu jën yi ñu jën fakk bo mbugé napp jën dañuy dem ba Mauritanie soit ñu dem ba Guinée Conakry ou bien dem bi Bissau sud moo amatu ñu licence en fait effectivement lool mo fa nek man ma né jaaykatu jën na mais actuellement jaayuma parce que amatu ma jën léegi su may jaar sama place su grand bi toog fi waxtaan xool. kon eh, actuellement per jën pour mu manqué dafa am ay eh, période am ou bien. waaw non doon am période mais en ce moment là nekkatul période parce que géej gi amul jën géeju Sénégal bon moo amul jën waaw parce que bon contrat ñi signé ak eh, yeneen pays la moo ñu rey looloo tax amatuñu jën waaye léegi suñu jën ñun Bissau lay jógee soit Conakry looloo tax. kon nga yaakaar Badoo la dina mën a gis boppam si sompat ak Dorati. non coob waaw lii moom ba prix la yi garaawul mais euh, yenn yi comme coof kasaw yaax bon njaane yenn jën yi quoi jën yi am ñun ñu ko maire yi xam nañ boo demee laaj leen ñoom xam nañ ko en fait bu njëkk ba dañuy dañuy ñoom avec 3000 francs ñu am lu leen neex ci marché bi mais 3000 francs bi benn sompaat nga ci am wala ñaar yaboy di dem ba jar ay euh, benn 400 kon xamal ni doxul oui. waaw sëñ bi waa Yegle TV ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. merci merci man maa sant.

mais maire ñoom dañuy xëy 4 heures du matin 5 heures pour daaw euh, benn affaire bu ndax pour seen doom wala seen njaboot donc léegi bu ñu jaayee géej gi lépp jeex maire yi fu ñu jëm ah. na waa c'est la question à se fu ñu jëm sëñ bi mën nga ñu ñëw rek euh, waat ñu tur bi. waaw man euh, Sidi lañ may wooye bon borom poissonnerie bi moom kii lañ koy wooye comment dirais sama grand bi sax Modou Poisson waaw. waaw ngi lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi. you internautes yi mbokk téléspectateurs Yegle TV ñoko gissando tay nak fi la ñëwoon euh, marché Liberté 6 extension ganna buñ fi dugg sé won nañ leen li nga xamanteni mo moo nekk kat bi ki di jaay légumes ki di jaay ndawal waaye tam yamuñu sax ndax dam nañ ci euh, ki nga xam mo moo di jaay euh, jënd wax nañ ci prix yi wax nañ tamit li nga xamanteni mo waral rek prix à un moment donné dañ koy aj ba ci kaw waxtaan waxtaan nañ tamit également ci li nga xam lutax prix yi muy am baisse tamit kon nak ñoko gissando gisandoo mbokk internet yi xana rek di leen di jox dig dajé benen yoon inshallah ci seen bir émission ndugg li jaa jëf